ngi réew mi na yeddu gaawte kaay defal ban ba jumaayam ji mooy li leen di dëfal mooy ndigalam lii mu leen fi mujj digal rawle ci lii bon na dagdu bañ ku ko fal ndax dafi daa fal ku daa matal ndigalam kuy wane buy teew lu baax ginnaaw bi defal ngir wëlaleew gor ginnaaw la féete fi man lée ba ko wax waaju koy ginnaawu jubul ngir wala réew gor ginnaaw la féete fi man lée ba ko wax waaju koy ginnaawu jubul xaw su dëddee ginnaaw ga mel ni kanam xocci balaa ay ginnaaw ga jóor la ni leen di defal réew mi na yeddu gaaw te defal ban ba jumaayam ji mooy leen di defal mooy ndigalam lii mu leen fi mujj digal rawle ci lii bon na dag bañ ku ko fal ndax dafi daafal ku daa matal kuy wane buy teew lu baax ginnaaw bi defal ngir wëlaleew gor ginnaaw la féete fi man léeba ko wax waaju koy ginnaawu jubul ngir wëlërewu gor ginnaaw la féete fi man léeba ko wax waaju koy ginnaawu jubul xawsu bu dëddee ginnaaw ga mel ni kanam xoj ci balaa ay ginnaaw ga jóor la nibal ni leen di defal réew mi na yeddu gaaw te defal ban ba jumaayam ji mooy li leen di defal mooy ndigalam lii mu leen fi mujj digal rawle ci lii bon na dagdu bañ ku ko fal ndax dafi daafal ku daa matal ndigalam kuy wane buy teew lu baax ginnaaw bi defal ngir wëlaleew gor ginnaaw la féete fi man léeba ko wax waaju koy ginnaawu jubul ngir wëlaleew gor ginnaaw la féete fi man léeba ko wax waaju koy ginnaawu jubul xew su bu dëddee ginnaaw ga mel ni kanam xocci balaa ay ginnaaw ga jóor la ni bal mm. leen di dëfal réew mi nange gaaw te defal ban ba jumaayam ji mooy li leen di defal mooy ndigalam lii mu leen fi mujj digal rawle ci lii bon na daddu bañ ku ko fal ndax dafi daa fal ku daa matal ndigalam kuy wane buy teew lu baax ginnaaw bi defal ngir wëlaleew gor ginnaaw la féete fi man léeba ko wax waaju koy ginnaawu jubul ngir wala réewu gor ginnaaw la féete fi man léeba ko wax waaju koy ginnaawu jubul xaw su bu dëddee ginnaaw ga mel ni kanam xocci balaa ay ginnaaw ga jóor la ni bal leen di defal réew mi na yeddu gaaw te defal ban ba jumaayam ji mooy li leen di defal mooy ndigalam lii mu leen fi mujj digal rawle ci lii bon na dag bañ ku ko fal ndax dafi daa fal ku daa matal kuy wane buy teew lu baax ginnaaw bi defal ngir wëlaleew gor ginnaaw la féete fi man léeba ko wax waaju koy ginnaawu jubul ngir wëlaleew gor ginnaaw la féete fi man léeba ko wax waaju koy ginnaawu jubul xawsu bu dëddee ginnaaw ga mel ni kanam xocci balaa ay ginaaw ga jóor la ni bal